centrales auront lieu le 12 décembre, À cette occasion, camarades travailleurs et travailleurs, au pouvoir insistant va choix celui de choisir librement, mais en toute connaissance de cause, la centrale syndicale qui devra te défendre, devra défendre tes intérêts face au patronat, face au gouvernement, dans les négociations. Celle si celles qui porteront ta voix dans les forats nationaux et internationaux. Aussi, au regard des enjeux et défis de la représentation de qualité des travailleurs, devras-tu faire un choix réfléchi et lucide, débarrassé de tout subjectivisme. C'est pourquoi la tient a porté à, la connaissance, à ta connaissance la vision et les orientations qui sous-tendent son fonctionnement pour accomplir sa mission au service des couches laborieuses de notre pays. De sa création à nos jours, la CSA a fait l'option d'un syndicalisme qui, ne vise pas la promotion personnelle, mais plutôt la défense conséquente de l'emploi, du pouvoir d'achat, des retraites centres des libertés démocratiques fondamentales, dont la liberté syndicale. Liberté syndicale que nous tant à défendre. En somme, la préservation et la promotion des droits économiques, sociaux, professionnels et culturels des travailleurs et travailleuses, qu'ils soient du public, du privé ou de l'économie informelle, parce que c'est aussi bien C'est la raison pour laquelle notre démarche a toujours été et demeure fondée sur Le fonctionnement démocratique, c'est le lieu de rappeler la limitation des mandats au poste de secrétaire général de la CSA et depuis sa création, et transparent de tous les mécanismes de prise de décision en accès l'acquisition d'une nouvelle bourse du travail pour la CSA sur fonds propres à Dakar et c'est le lieu qui nous a pris. C'est aussi dans cet esprit depuis plus de deux décennies, il a été retenu et appliqué rigoureusement le principe de l'alternance au sommet de la Confédération, afin de permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir accéder aux plus hautes responsabilités dans notre organisation. En somme, la possibilité d'un renouvellement régulier des cadres de direction en vue d'un souffle nouveau et salvateur pour notre confédération demeure dans nos valeurs. Comme tu peux le constater, chers électeurs et chers camarades travailleurs, et le vérifier, la vision et les démarches syndicales de la CSA sont aux antipodes de l'affaire du syndical, de la ruée vers les prébendes et de la démagogie euh, populiste propre à, ces, à des dirigeants syndicaux qui, en cagoule ou à visage découvert, ont tourné le dos pour s'intéresser aux masses laborieuses. Aussi, le moment est venu, l'heure de vérité en isoloir, à ça, souhaite une décision finale hein, que tu auras à prendre, bien renforcer les valeurs qu'il incarne depuis sa création. Un syndicalisme démocratique réellement autonome, critique, mais constructif, exclusivement au service des travailleurs de notre pays et du monde. De façon spécifique, la CSA réitère son engagement aux côtés des enseignants qui, pour, exiger du gouvernement la signature sans délai du décret 74 374 du 12 décembre, euh, du 12 avril 1974, rétablissement, rétablissant la carrière des étudiants. Je pense que le camarade euh, y reviendra dans sa déclaration. Il y a aussi la lancée en question des lenteurs et lourdeurs administratives à la production des actes administratifs par la fonction publique au paiement des différents rappels par la et des enseignants en prison. La mise en œuvre effective de la fonction publique. J'ai cité ça comme exemple, mais nous sommes revenus largement sur l'ensemble des questions spécifiques dans nos différents documents que sont les 10 raisons pour voter CSA et les nombreuses allocutions sur lesquelles nous sommes venus. Voter CSA, c'est voter juste, c'est voter utile. En avant pour une victoire au bénéfice des travailleurs. des travailleurs. Merci beaucoup de votre commentaire. ci la une natte euh, confédération syndicale yi Sénégal ñan 10 pour le pour 12 décembre. Euh, loolu daf may may liggéeykat yi pouvoir maanaam mu tànn ñi nga xam ne yaakaar naa ne mën nañ ko toogal ko mën nañ ko toogal devant le mën nañ ko toogal ci kanamu gouvernement bi mais mën nañ ko représenter aussi ci négociation yëpp yi am mën nañ aussi tànn ñoo xam ne biir Senegal ak ci biti Sénégal bu waree yëkkati kàddu Senegal, ñooñu ñoo lay wax ah, ñu jàpp ne loolu lu am solo la ci Sénégal naam ñu ci bëri dañuy dégg sondage dañuy dégg rek mais lu ñu xam réellement li ñuy liggéey donc ku la war a saytul say revendication war la négocier naam syndicat de base yi am nañ négociation yoo xam ne ñoo koy defal seen bopp ci seen biir entreprise ak seen service mais li nga xamné mo moo tënk central ñokoy euh donc doole joju nak ko koy jox war na ko tan seet di ko seetaat ko pour que bu demee tok euh dila waxal sans mu dugal ci lu ci bopp loolu moo tax la c'est ça di wane ne ci biir vision ak orientation ak fonctionnement lepp lu muy dox ci intérêt liggéeykat yi la koy def ak intérêt suñu réew muy Sénégal biñ ko sosee ba léegi ci biir forme syndicalisme bi ñu def yaakaar naa ne liñ jiital mooy liggéeykat yi liñ jiital mooy intérêt général population Sénégal loolu mooy wane at yi ñu dox yëpp lépp lu ciy dox lépp lu ñuy àddu dañ ci sóoraale nan la ñuy saxalee liberté démocratique ci suñu Sénégal monom eh, nit ñi am sañ-sañu wax li ñi xalaat am sañ-sañu aussi défendre sen position te yaakaar naa ne loolu CSA yàgg na nan lañuy def aussi pour que ñu yewenal économie réew mi nan lañuy ñuy war a def ba eh, social bokk ci eh, décision yi nga xam ne gouvernement Sénégal daf koy jël yaakaar naa ne loolu aussi bokk na ci li tax CSA taxaw ci côté liggéeykat yi nekk na ci fonction publique ci liggéeykat yi nekk ci côté privé mais également liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi ci secteur informel te nekk ay liggéeykat pour tous les euh, ñu jàpp également que éthique boobu ak fonctionnement démocratique boobu nga xam ne CSA saxal na ko bokk na ci ñu ne CSA ki koy jiite warul toog lu ëpp ñaari mandat de cinq te bàyyiwul keneen te loolu fi ñu ko lal mooy permettre ndaw ñi nga xam ne ak expertise bi nga xam ne dañ koy former ñu mën a jël relève pour que euh, liggéeykat yi ñu mën leen la continuer défendre ci lañ ko gisee parce que lay fekk léeg-léeg euh, yow boo bëggee défendre ñoo xam ne euh, seeni at différence bi bëri na léeg-léeg seeni soxla ak seeni préoccupation bu bokk ak seeni préoccupation Euh, loolu moo tax CSA jiital donc euh, euh, principe boobu ak orientation ñu jàpp ne CSA aussi ci biir doxalinam maanaam du jiital affairisme maanaam ñoo xam ne dañuy mbubboo li génn def leneen pour seen intérêt ñu jàpp ne ay prébende maanaam loo xam ne dañ la koy jox pour guerre la mbaa ñu jox la ko pour

boo nekkee ci liste électorale yi nekk ci bureau de ci ñu dugal na ci liste yi am nga droit wu voter yaakaar nañ ne boo nekkee ci isoloir bi nga xalaat CSA pour que ñu jox ñu ndam que CSA mën a jëmmal li nga xam ne nii moom lañ fi wax muy euh, syndicalisme démocratique euh, ci wàllu spécificité maanaam quelques point yu ñu bëggoon jukki xëy na te jukki nañ ko ci suñu gis raison yi jukki nañ ko ci suñu communication yi jukki nañ ko ci suñu campagne ñu jàpp ci rek mooy euh, CSA dafa jël engagement accompagner euh, le secteur de l'éducation plus particulièrement les travailleurs qui ñu wooye ay décisionnaires pour que décret bi leen di régir euh, nga xam ne waxtaan am na ci ñu mën ko jëmmal pour que liggéeykat yi bénéficie ci ci ñu gën a gaar ñu jàpp également que li ñuy tuddee ay lenteur administrative maanaam que produire pour que ñu defal ay nit acte pour avancer mbaa ñu changer seen euh, solde ci biir fonction publique loolu aussi a un engagement de ñi gën a taxawal accompagner euh, camarade euh, liggéeykat fonction publique particulièrement enseignant fonction publique locale aussi nekk na réalité au Sénégal mais lii ci am solo ba am solo moy revalorisation bi ñu def sen ay payo. Euh ay euh, classement yu tolloo ak sen payo. yaakaar naa ne loolu euh, taxaw nañ la que ñu dëgg dana taxawal justice ci biir Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup